nuyu ñëpp nag maa ngi nuyu ñëpp ñëpp donc ziar naa leen ziar naa leen yéen ñëpp xam naa ni bu doon sama sago damay jël sama temps def live bu gudd jox leen kàddu ñëpp waxtaanee ko mais dañ ko def message bu gàtt rek nañ ci ñëwaat donc maa ngi nuyu ñëpp sénégalais yi askanu sénégalais yëpp maa ngi leen di nuyu bàyyiwuma kenn xale mag jigéen góor ñëpp maa ngi leen di nuyu mais sama message yu tey bii maa ngi koy jagleel ñi nga xam ni ñu ngi leen di woowee les patriotes ak ñi nga xam ne ñu ngi leen di woowee les sympathisants de Ousmane Sonko président Pastef ak sénégalais ak sénégalaises yi nga xam ne itam bokkuñu fenn sax mais gëm nañu doxalinu euh, projet PASTEF gëm doxalin citoyen yi ñuy def di ko jagleel itam euh, militant militante mouvement force citoyenne di ko jagleel militant yeewi askan wi yépp di ko jagleel militant de la liberté yi yéen moom message bii yéen a moom message bi depuis démb maa ngi gis ay lingeer ay jàmbaar ay gaynde seen xol yi fees ba ñuy jooy ma yëkkati sama kàddu di leen wax fomp leen seen rangooñ fomp leen seen rangooñ naan leen ndox seen rangooñ yooyu di xelli dafa ëpp ci nguuru Macky Sall bii bu leen jooy li leen metti bëri na te c'est normal mu metti leen parce que quand on dëkk bu amul justice nga gis koo gëm gis koo yaakaar gis koo bëgg gis xam sa waajur la nga gis ñu koy teg ci yenn situation di ko wax yenn kàddu yi neexul waaye patriot yi wala yéen a seen aay bi nag dafa gudd 2021 ba léegi yéen a balaa boobu sax yéen a ay ay bi nag matal ngeen ko boobu léegi ci taxawaay am na sax ñu ne ci yéen ñoo xam ne ñu ngi leen di dut baaraam naan seen wax tegginuwul nan dañoo violent nan dañoo vulgaire mais dans l'ensemble sénégal yi naw nañ leen parce que seen engagement seen détermination ci politique da ngeen am engagement bu désintéressé wu yéen patriotes yi yéenay premier militant yoo xam ne da ngeen jël seen xaalis di ko contribuer seen leader di ko contribuer seen projet kon yéen gàcce ma yeneen premier militant yoo xamante ne da ngeen di ñëw ci parti di ci def seen xaalis mais yaakaaru leen ci dara bu heure xeex jotee bu ñu leen woowee ngeen jóg xeex mu doggu nag jaral leen lu ne yéenay militant yu nga xamante ne wone ngeen ni engagement dafay total engagement du rek naa yëkkat sama carte déedéet dama ci def sama xaalis ci sama temps da ngeen révolutionner politique nuñ koy defee. da ngeen révolutionné militantisme nuñ koy defee am na militant yu fi yàgg am mais yéen seen façon de faire ku leen ko wax ak ku leen ko waxul naw na leen ku leen ko wax ak ku leen ko waxul naw na leen tax ngeen ba mouvement yi ñu yor ñun ak yeneen i parti ñu ngi defaraat seen ay façon nit ñi comprendre nañ ni boo ñëwee ci mbir bul xaar leader bi jox la jëlal sa alal def ko ci moom boo gisee lu mu manqué nga taxawu ko boo gisee lu mu laaj nga def ko ci macha allah loolu gàcce ngaa laa ma yéen seen taxawaay boobu ba léegi nag dafa àndoon ak dëgërlaay ànd ak ak détermination sans loolu moom mooy seen seen njiglaay bu leen ko wàcc bu leen ko wàcc seen xol fees na seen xol tuuru na mi bu leen tuur rangooñ président Macky Sall jarul loolu komba bi fi mu toll nii laajul loolu laajul loolu président Macky Sall jooyloo fi ku ne tourne firangoñ bu ne euh, bi muy yootu Karim Wade ay paa nga doon jég gis ak ñu toog di jooy ndax ñooñu la àndoon ak Ablaye Wade gis Macky Sall dem ba tuur rangooñu Ablaye Wade bëccëg ndar kam wax ko lu ñaaw ay mbokkam wax ko lu ñaaw ñu toroxal ko toroxal njabootam jabaram di yendu ci tribunal bii Viviane Wade di fa añee di xëy suba la fay xëy ba ngoon jot mu wàcc si njël waa ji tegatul tànkam Sénégal ay weeri weer mu jàpp ci ñooñu teg leen loxo di leen toroxal yootu na fi ka xalifa Sall jooyloo ko fii ngeen gis rangooñu Khalifa Sall en ay mbokkam jooy ay jegenaayam jooy terewu ko mu def li mu bëgg def kon nag ay rangooñ du ko tere def li mu bëgg a def fomp leen seen ay rangooñ naan leen seen ay rangooñ takk leen ko def ko fit def leen ko ci biir seen biir xol yi fi ngeen ko defoon delloo leen ko foofu parce que Macky Sall nit ñi dañuy jooy muy def nit ñi di xaru muy def nit ñi di dee muy def nguuram delloo ñu ginnaaw ci dara loo am rek ñoom ñu ngi continuer kon nag li ma leen di conseiller ndaxte nag sañ naa leen ko conseiller parce que famille lañu patriotes yi citoyens yi ñun ñëpp ay famille lañu bëgg ngeen ñu sagal ngeen ñu yëg ngeen ñu fu ñu yëkkatee kàddu wax ngeen teg seen ay nopp dañuy déglu fu ñu jógee taxaw bu ñu gëstoo gis teen suñu ginnaaw xoolu leen ndax de dañoo nekk suñu parti bopp bokkuñu parti ak yéen déedéet li ngeen di xool rek mooy na ñun ñu ngi engagé wu dans l'intérêt supérieur li ngeen di xool mooy Maimouna Bousso mii Sénégal la ko tax a xeex kon fu mu taxaw nañ taxaw ci wetam mais bu leen jooy c'est pas bien su ma gisee ay vidéo ngeen génnee li nekk seen biir xol xam leen ni heure bu ngeen ko defee rek di boor bee ak neutre yi ñu ngi fëgg seen dënn ndax loolu lañ bëgg et puis nag nit ku nekk booy dox da ngay xool sa leader jooyul raful da ngay xool fi nga jëm jooy amu fa raf amu fa taxaw leen ngeen takku taxaw leen ngeen takku ndax wane ngeen ko wane ngeen ni yéen képp yéen a taxaw yiir seen leader ànd ak askanu Sénégal ba ne lii mag Sall bëgg a def du ko def 2021 kon nag looloo nekkaat ci seen kanam rek dara be dara beesu fi loolu jëm ci seen kanam nag du caalit moo leen fa yóbbu du du du du du moo leen fa yóbbu du xol yi jeex moo leen fa yóbbu góor góorlu leen yokk leen dëgër laay yokk leen dëgër laay bu baax a baax yàlla baax na yàlla dina leen ci jàppale yàlla dina ñu ci jàppale ndax ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun force citoyenne mais ñun citoyens yi ñun ñëpp ñi nga xam ni 2012 ba léegi ñoo ne ci xeex bi ñun ñooy bokk xeex bi ci des kenn du dem bàyyi sa moroom parce que fii ku fi xef rek ku fi raf-rafee ñu saraxe la ku fi raf-rafee ñu saraxe la parce que fii ñu toll tem lan xeexoon ba jot ko tey bu nu bàyyee rek mu perte nañu lépp te kenn mënta perte lépp kon nag góorlu leen yombul mais takk leen xol yi takk leen fit yi ndax ngeen mën ko boole ak xel yi gis nga xeex bi ñu jëm du xeexu déclaration du xeexu coow du xeexu wax bu kawe déedéet wax tuuti jëf lu bare ndaxte euh, jamono ji euh, radar yi ubbeeku nañu renseignements généraux yi ubbeeku nañu bëtu làmp yi ubbeeku nañu ñu ngi xool ana ñuy xupp ana ñuy wax ana ñuy yëngu ana ñuy coordonné ana ñuy yëng-yëngal ana fu mbir mi nar a kon nag stratégie stratégie ba mu mat sëkk ànd ak xel ànd ak tekk ànd ak tey xam fi ngeen di waxee xam ni ngeen di waxee yoot ndax kuy yoot du sëqat kuy yoot du sëqët ki xam fu mu jëm du ko yëgle donc yenn publication yeeg yenn euh, mbir yëpp mën naa ñàkk mën naa ñàkk waaw mën naa ñàkk ndaxte ràbb leen ko rek waaw ràbb leen ko ndaxte mbir mii mbiru Sénégal kese la Sénégal képp la ko bokk nag bu kenn jàpp ni problème bi problème mu Pastef la ou problème mu Ousmane Sonko la déedéet Sénégal yépp la Sénégal yépp la ndax ñëpp a ngi jooy nit ñaa ngi dee ci tali yi hôpitaux yi nit ñaa ngi fay dee transport bi problème la santé bi problème la école bi problème la ku yokk nañu gasoil bi courant bi yokk nañ ko fépp a metti fépp a métti kon nag ku nekk jàpp leen ni rek ndax dañoo waxoon ni 2021 li fi xewoon dafa tombe woon nag avec une colère ay mer yu dajaloo woon tey la ëpp waaye jàppale ni yéen a ngi ci réseaux sociaux yi di wax mais kenn ku nekk mu ngi ci biir këram yor meram toog di ko kenn ku nekk mu ngi toog ci ëmbam toog ci ëmbam di déglu di xaar Sénégal problème yi dañoo bëri Sénégal problème yi dañu bëri kenn ku nekk yaa ngi yor sa saaku problème oto boo ko yëpp ngay wut ku nekk yaa ngi ak sa saaku problème oto boo ko yëpp ngay wut kon nag bu makk sàll jëlee auto justice teg ko ci mbedd mi jël injustice def ko chauffeur bu soobee nag bi kenn ku nekk di nga jël sa saak yàq ko ci fu mu yem nag neex fu oto ba jëm rek fu oto ba teeree neex ñu xam ni loolu la yàlla dogal kon nag xaayaan ku dégg séeréer du lépp lañuy wax du lépp lañuy ñuy expliquer du lépp la ñuy la ñuy faram du lépp lañuy ñuy mais li am solo mooy ngeen ànd ak dal ànd ak xel ànd ak stratégie te itam ngeen xam ni yéen militant Pastef yi démocratie sénégalaise da leen sénégalais daf leen soxla Yewwi Askan Wi da leen soxla Force Citoyenne da leen soxla Mimina Bousso da leen soxla dama bëgg di leen gis ci détermination gis leen ci combativité bëgguñu leen gis ci ay jooy bëgguñu leen gis ci naqar bëggu leen gis ci découragement parce que loolu dafa am jeexital ci qualité combat bi ñuy xeex donc ressaisissez-vous taxawaat leen bu baax a baax ngeen gën a xool ngeen gën a sañ ngeen gën a xam naka lañuy naka ngeen di ciy demee donc euh, loolu laa bëggoon vraiment jàllale ko message di wax ni xol yi metti na xol yi tàng na et on voit mais nag am nañu tuuti expérience ndax gis nañ fi rango ñi fi tuuru woon ci yeneen leader politique terewul euh, machine judiciaire bi egg fi ma egg kon dañ leen di ñaax ne leen loolu du solution bi loolu du solution bi dënn yi teg leen ko bu leen ko waxee voilà bu leen ko waxee bu leen waxee dënn yi bu leen bu leen jàpp ne am na ñu sore ñoo xam ne dañu jàpp ni dañu sore rek moo tax dañu jël stratégie wax ko ci ci place publique bi jaru ko Macky sàll de xam na li xew ki Sall xam ne li xew xool leen kanamam nelawatul ba yandoor nekkatul ci jàmm nekkatul ci jàmm moo la gën a xam ne front bii mu bëgg a ubbi ah front dina am ubbee front front nag dina am parce que nag kenn tëdd ñu lay rendi te doo wéqu xaru sax nga xam ne laye la ndogalu sunu borom la yàllaa ko digle boo koy di dafay fittu atantumaa nit ak i noppam kon moom moo la gën a xam ni fii mu jëm dana am lu fa am mbir mi nag momenté la rek la comme ni may wax chaque jour dafa am cooki bu ñu war a cooki ak moom dañu jàpp dañuy xaar cooki fin ni xëy na moom da koo bëgg a anticiper waaye jàpp leen ni rek combat yii ñu jëm bis bu combat sappoo mooy 2024 2023 lañ leen waxoon ni mooy 2024 boobu ba léegi ñu ngi leen koy wax ne leen 2023 mooy bu commencé ba 2024 lañ jëm ci combat lañ jëm mais tey jii euh, régime bi mu ngi wone ni a bokk mu ngi koy jéem bokk mu ngi koy làmb bokk mu ngi koy essayer bokk ne xeexu fin 2024 bi xëy na moom lañ bëgg a anticiper fii waaye la yéwén nañ ci dem li xale yi di wax na ko dal li xale yi di wax na ko dal na ko dal ndaxte nag nit ku yàlla sàkk ku nekk da ngay dund waaye kenn mësul gis ku dee ñaari yoon kenn mësul gis ku dee ñaari yoon nit ku ne benn yoon ngay dund waaw kon nag nekk leen ci jàmm dund leen ci jàmm euh, noppalu leen dallu leen euh, reposé wu leen euh, préparé leen togg leen te ku togg di nga yekk ku togg di nga yekk euh, des fois sax silence dafa gën a dangereux yëngu-yëngu bu ëpp parce que bare na kuy xupp doo def dara bare na ku ne tekk buy jóg du tàggoo kon nag ndànk-ndànk rek ndànk-ndànk rek gis soo gisee tension bi jóg na mais nag ku wax fi nga jëm boo moytul doo fa egg te ku wane sa sa chemin côté dafay yomb kon nag ah yéen war a xool sénégalais nañu xool fi ñu jëm bu ñu fa bëggee egg bu ñu tàggu ki leen di kar bu ñu tàggu ki leen di tere bu ñu tàggu ki nga xamante ne ah bu leen xamalee yaatal leen yaatal ko ba ki duñ fa mën a àgg kon nag wax jaa ngoog wax jaa ngi noonu ci seen ay loxo. ñun nag comme ñëpp rek euh, dénk nañ suñu boroom yàlla dénk ko askan wi dénk ko ñëpp ndax ñun foog naa ni xam nañu fu ñuy waxee xam nañu nu ñuy waxee xam nañu itam fan kañ lañu war a wax ndaxte boobu ba léegi nag yàlla mu ngi ñuy suturaal ñu ngi dëkk ci réew mii ci réew mii lañuy waxee nag waxee wu ñu feneen fu ci réew mii mais xam nañ fu ñu teg suñu tànk xam nañ fu ñu koy teggi xam nañ ko ciy àndal te bu soobee yàlla nag wax jii duñ ko mës a bàyyi parce que suñu rôle la de conscientiser suñu ay rakk de conscientiser suñu ay moroom suñu responsabilité kott lañ def dañ ko def nag avec responsabilité avec mesure euh, sans violence sans wax bu tegginuwul sans diffamer qui que ce soit mais duñ jóg ci di ko wax duñu jóg ci di ko wax <coughs> ndax incha allah dafa am loo xamante ne suñu wareef la comme ni may wax toujours suñu ay maam dañoo xeex seen wàll ñëw jàkkaarloo euh, ñi nga xam ne ñoo doon ñoo leen doon jaay ñu résister xeex indi seen stratégie ba suñu race bi nërmeeluwul suñu yeneen maam ñëw jàkkaarloog colon yi fexe xeex ba desi suñu culture ba desi suñu diine ba desi suñu identité ñun nag ñu ñëw suñuy papa ñëw ñoom it xeex ba taxawal fi état ba monarchie amu fi ba buur amu fi ba Sénégal nekk un état laïque républicain ñun ñu ñëw am suñu waar am suñu wàll war ko dox te bu soobee yàlla dinañ ko dox matee ko ndax se nag dañoo jur fu ñu war a juree ñu bokk ci réew mii am yeneen yi wàll feneen ak feneen mais fii gënoon ñu ndaxte nag lii mooy suñu ADN kon ñun lu dul incha allah def suñu wareef ñu ni tamit ba ëllëg bu ñu fa jógee suñuy doom mën a ñëw topp suñu ay tànk duñu ko wàcc mukk duñu ko wàcc mukk réew mi du yàq suñu ay loxo xalaatuñu ko ndax yàq suñu ay loxo moo ñu seetaan régime Macky Sall ak ñi mu àndal ñu bëgg a jël réew mi def ci li nga xam ni suñu ay maam nanguñu ko woon suñuy papa nanguñu ko woon suñuy maam nanguñu ko woon ñun ñu nangu ko nax lan suñu yaafus wala sunub ragal wala sunub ñàkk gëm yàlla xalaatuñu loolu xalaatuñu loolu li suñuy waajur liggéeyoon suñuy maam liggéey ko suñuy maamaati liggéey ko loolu képp la ñuy kotti continuer loolu képp lañuy ñuy bunt buntu yokkul duñ ci bunt buntu yokkul duñ ci wàññi ndax loolu nag mooy suñu wareef te mooy suñu défi ndax suñu génération bii fekk nañ fi lu ne fekk nañ fi état fekk nañ fii euh, nga mën a feebar faju ndax am nga ay médicament am na ñu ko xeex ndax bu njëkk méttitu bopp da doon rey nit léegi macha allah fekk nañ fi loolu fekk fi développement bu njëkk boo bëggee dox ndox dangay dangay dem ci teen bi wëgg da ngay ubbi robinet am ndox taal sa làmp am courant leneen ak leneen génération yu yépp jàll fi bu njëkk liggéeyal ñu loolu yépp tey ba tey taxaw ñu egg fii am li nga xamante ne moom moom moo ñu dese kon tey suñu génération bii mënuñu faillir mënuñu nelaw mënuñu teggi suñu loxo dañuy combattre jusqu'au bout parce que nag munoo fekk li yëpp génération di gëmb sa bët di ragal di yaafus di seetaan ba lépp di la rëcc di yàqu ci sa loxo bu ëllëgee looy lay sa boroom kon nag dinañu taxaw suñu taxawaay ba mu mat sëkk te àdduna dina ko seede suñu descendance dinañ ko seede kon nag kàddu yaa ngi noonu kàddu yaa ngi noonu maa ngi leen di jaajëfal jaajëfal sénégalais yi sénégalaises yi mais di jaajëfal patriotes yi militant parti Pastef sympathisant Ousmane yi maa ngi leen di jaajëfal di leen wax na leen détermination bi ngeen àndaloon ba léegi bu leen ko wàcc bu leen ci changer bu leen fayir bu leen dutewu bu leen jooy bu leen xef bu leen raf parce que c'est comme ça qu'on vous aime noonu lañ leen bëggee engagement bi ngeen àndal mooy seen force mooy seen vitalité gardez ce cap sa ce cet engagement ne fléchissez pas bu leen may noon lu mu leen reetaanee bu leen may neutre lu ñu bëggee bu leen ko nangu téy leen fi ngeen téy continuer leen ci tànk yi ngeen nekkoon bu ngeen yokkul bu leen wàññi metti na nag mais gis nga un conseil que je vous donne xam naa ne sax jaru ko parce que xam ngeen ko mais dama leen koy jox rek parce que kenn su nekk ku nekk su ñun mës ngaa nekk ci jamono yi président Macky Sall yenn la lu metti wala justice bi yenn la lu metti loo xamante ne bi mu eggee sa kaw da nga sukk arrivé na ma arrivé na ma justice bi tey ñuy wax te wóoluwuma ko parce que amul justice sukkuloon nañ ma benn oom mais je me suis redressée parce que dama am amour autour de moi parce que dama am soutien autour de moi bi ñu may songu di ma bëgg toroxal samay njaboot xamuñu lu sama kër fa la ñu juddoo fan la ñu màggee ñu xëy suba 15 ans de vie ñu génnee leen ci biti ba tey jii samay doom des fois dañuy toog di jooy naan ma maman dañu bëgg delluwaat foofu dañu bëgg a dellu suñu kër lan moo tax nekkuñu suñu kër mais damay leen di yëkkati teg leen sama wet ne leen bu leen jooy bu leen jooy parce que su ngeen jooyee ñii ma jógoon pour combattre da ngeen leen di may dëgg da ngeen leen di may victoire seen seen seen larme seen tristesse seen colère il faut ngeen jël ko ngeen ngeen ngeen multiplier ko ngeen jël ko ngeen transformer ko en moteur de combat ngeen transformer ko en ñàkk et en courage et c'est ça que j'ai fait moo tax tey ma mën a taxaw fii ba tey moo tax tey ma mun a continuer su ma guddee jotee bu ma tëddee nelaw moo tax ma mën a rester di résister moo tax ma mën a am cette force révolutionnaire et dama leen di dama leen di dama leen di conseiller la même approche ce n'est pas facile mais su la nit bëggee sukkal boo sukkee sa benn tànk bul nangu mukk sukk ñaareelu tànk bi parce que nag ñaari tànk yi suñ boroom dong ko moom yàlla dong yàlla képp moom moom ñaari tànk yi yàlla képp lañ war a sukkal ñaari tànk yi lu weesu yàlla kenn warta sukkal nit ñaari tànk yi kon nag benn bi sukk na yëkkati leen ko utilisez la comme levier pour vous relever debout, sans passer par, par l'autre par l'autre par l'autre côte, par l'autre genou. jóg leen ngeen am courage ngeen am force ngeen xam ne vous n'êtes pas seul ngeen xam ni euh, ñun ñi ngeen doon soutenir bi ñu nekk ci diggante tey on est à vos côtés pour vous soutenir parce que vous êtes dans une épreuve mais au-delà de vous ce n'est pas une épreuve bu nga xam ne da leen a concerné ça concerne l'avenir politique du Sénégal ça concerne la démocratie ça concerne le combat contre Macky Sall donc ne vous ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas ñi jàpp ni yëpp il faut donner des informations par ci par ça ne vous inquiétez pas xam leen ni les gens sont avertis les gens sont avertis tout le monde est averti donc vraiment C'était un message de soutien, un message d'encouragement, mais un message d'amour que je lance à tous les patriotes. Un message d'amour pour vous dire que euh, on vous aime comme vous nous aimez. Et on est fiers de votre façon de militer. On est fiers de votre engagement. Voilà, on est, on est fiers de ça, mais on ne veut pas vous voir en pleurs. On voit de grands combattants qui sont touchés, mais on dit c'est normal, c'est normal. Mais transformez ces pleur en force et en, et en courage et redressez-vous. fomp leen seen ay rangooñ fomp leen seen ay rangooñ bu kenn jooyati Eva bu kenn jooyati taxaw leen ngeen xeex ndax nii la rek nii la rek menace nii la rek Macky Sall nii la rek ku ne bu njëkk da doon yóbbu nit ñi chez le coiffeur maintenant day yóbbu nit ñi devant les larmes góor bu ne jooyloo na la rangooñ bu noobul bu nekk tuur na la ci réew mi ku ne rek ak sa bis ak sa àpp tey ñii aaye suba ña ca des aaye noonu rek la mais nag ay bi daj na ay bi daj na ay bi dafay daj mété bisu julli xam nga bisu julli bu jotee ki aaye woon ak ki aayewul woon ñëppay dugg ci waañ bi ndax ñëppay booloo kon nag jàppale ni Macky Sall xëy na ay la bëgg a dajale bu ko dajalee nag ñam njëkkoon a aaye bu leen seet ni kenn jàppale wu ma woon déedéet soobu leen seen loxo ndax day fekk añ bi yekk bi day gën a gaaw ñi nga xam ne aaye guñu sax te toog te xalaat ni seen ay dafa war a ñëw sumb leen seen loxo ndaxte bu ay bi sottee xëy na bu ëllëgee du ngeen aaye waaw noonu rek la ñu am bokk benn destin mooy ce destin de de de de de résister et de survivre à ce régime euh, euh, pouvoiriste bi nga xam ni dafa am euh, un excès de de de de de de pouvoir donc on doit résister on doit survivre ensemble ensemble voilà donc vraiment loolu laa leen di ñaan. bëggatuma gis benn benn benn benn euh, militant sympathisant patriote sénégalais même sénégalais yi politikul nekk seen loxo di jooy ah, ah bëgguma gis loolu bëgguñu gis loolu bëgguñu gis loolu dañu bëgg gis détermination ngeen jóg taxaw ngeen jóg mobilisé ngeen jóg taxaw temb bu waree ñu ànd taxaw taxawandoo bu am fulla ànd xeexandoo ànd nag euh, dekkil suñu ngor dekkil sunu suñu suñu suñu suñu suñu jom ba nga xam ni euh, sunu réew dinañ jot dinañ ci jot yóbbu ko fi ñu bëgg voilà donc euh, bàyyi leen bu leen jooy bu leen mer bu leen bu leen teg lépp ci loxo yàlla wàcc ko kenn mënu ci dara déedéet déedéet waaw sunu avenir mu suñ loxo yi ñëwut fenn ñëwut fenn mu suñ loxo yi ñu demee ba nga xamante ne Sénégal Marine Le Pen mi nga xam ne moo ne nañ génne ay sénégalais France moo mën a ñëw Sénégal bii di dox di taxawaalu di dem fu ne ah mën a dem mën a dem fu nekk di dugg di génn dem ba Ndar xàmp ci ci ci ci ci sunu. ci sunu euh, nuñ koy waxee te sax encore euh, gerte suukar yi ah di doxantu di dem fu ko neex libre comme leer ñun doomu Sénégal yi moom suñu réew mi ñu ne ñu yéen da ngeen di am frontière fii ngeen di yem du ngeen yem fee waaye <laughs> waay waay loolu de ku ko nangu yow moom yaa yées ci li li nit ku ñuul amoon ci réew mi yaa yées kenn du nangu loolu kenn du nangu nit koo xam ne fee nga toog ci sa réew di ñu wax lu ne ci lu bon lu ne nga teg ko suñu dellu nit ñu ñuul ñii rasist ba ñu la koy woowee nga yëkkati sa avion dugg Sénégal nag c'est normal parce que ay Sénégalais ñu fi a dugg France waaye nga mën a doxantu Sénégal di dox nu mu la neexee di dugg di génn nu mu la neexee yëkkati sa kàddu ñu lay interviewé nga koy wax nu mu la neexee ñun ñi dëkk ci réew mi juddoo ci réew mi sëg yi fees dell ak suñuy maam sunu waajur yi amuñu du dul fii ñun ñu war a mën a nangu ñun ñu ñuy tënk ki réglé ki horloger du fii ngeen di jaar ak du ngeen yem fii ma ne <laughs> loolu ñun bokkut suñu génération bokkuñ ci génération boobu waaw yàlla nag muy bëgg a defar Sénégal moo tax mu jàpp ne damay tënk benn génération de personnes def ci ñoom ay góor ay jigéen ay ndaw ay mag ak rakk ay lu ne jaxase leen boole leen fexe ba ñu bokk benn mbir yàlla di réseaux sociaux yi yëpp yàlla la neex ñu mën a dajaloo ci ay kuréel di waxandoo di xàccandoo di dóorandoo yàlla moo bëgg Sénégal tegu ci ay raay ngalla buñ ko yàq ngalla bu ko kenn yàq maa ngi koy yemale foofu na ngeen ma dimbale rek euh, ngeen dem jàllaleel ma message bi ba ñi nga xam ni ñoo tuuroon seen ay rangoon nañ ci jot ba nu arrêté ba nu euh, renforcé wu ba ñu taxaw taxawaay bi ñu taxawoon siggi parce que noonu lañ leen xamee woon noonu lañ leen xamee woon dara lu bees xew fi ay nit ñuy bind ay livre ay nit ñuy plainte ay nit ñuy simbak ñu nit ñuy daanook ay nit ñuy rëbb dara lu bees xew fi te yéen dara waru leen a bett yéen patriote dara waru leen a mën a bett sénégalais yi dara waru leen a mën a bett ndaxte fii lu fi Macky sàll defagul amul lu ne te jéem na ko fi lu ne waaw lépp nag ngir lan toog rek toog ci nguur gi rek kon dara lu bees amu fi dara kon nag góor góorlu leen ah, ki ne góor góorlu leen yéen ñëpp ngeen daal di ah, alimata yéen ñëpp ngeen takku ngeen gën a taxaw ngeen gën a taxaw ngeen gën a taxaw donc vraiment loolu laa amoon lu may wax maa ngi leen di jaajëfal di leen bëgg di leen wax ni bëgg naa leen di leen wax ni sénégalais yi bëgg nañ leen di leen wax ni incha allah rabbi li ñu bëgg ci sunu Sénégal gi fekk ñu ngi koy def ak xol yu laab fekk ñu ngi koy def ak dëggu fekk ñu ngi koy def ak yéene ju rafet ji ñu am te jiitaluñ ci sunu ak bopp mais sunu ay njaboot lañ ci jiital jiital ci sunu suba ñu mën a am mujj bu rafet mën a am ñu ñuy fàttaliku fekk ñu ngi ciy jiital sincérité boobu incha allah rabbi yàlla dinañu ci may li nga xam ne moom lañ ci bëgg jërë ngeen jëf merci beaucoup.